Euh, wax ne cérémonie bi ñu dajale fii tey mooy euh, niñ ko waxe woon te tàmbali woon que euh, depuis feebar bi tàmbali mu di mbas mi suñu taxawaay mooy jéem seet nan la ñuy def ba xeex li nga xam ne mooy mbas mi lépp loo xam ne nag si xeex boobu la jublu si lañ taxaw moo tax li ñuy def nii tey mu di cérémonie bi nga xam ne commune bi moo jënd ñaar fukki tonnes ak juróom si ceeb fas ne kaa jox euh, waayeen euh, si lool la loolu nag dafay ñëw fekki li nga xam ne defoon nañ ki ndax euh, bi ñuy tàmbali jënd nañ fi garab yu bari valeur bu 8 millions jox ko district sanitaire bi nga xam ne si lañ dépendre mu di bu jam Diamniadio ak poste de santé bu yi nga xam ne ñaar yi nekk yeen si loolu aussi la ñu démarré ak ay gel ay masque Euh, jënd nañu aussi yeneen produit yoo xam ne jox nañ ko nit am na aussi ay benn commité local boo xam ne taxawal nañ ko depuis le 20 mars bi nga xam ne ki ko jiite mooy président wu zone yenn mu di Omar bii bi lëkkale ASC yëpp euh, bés bu ñu xëyaan ñu ngi si biir euh, commune bi quartier yëpp dem nañ fa dem nañ si mbaar yi dem nañ si pêcheurs yi pour sensibiliser leen bi yàlla def gouvernement bi ñëwit si programme bi te ñu lance ko fii ak ministre Mansour Faye en phase pilote bi ñu joxee ba pare gis nañ ne am na ñoo xamante ne ay liggéey waroon nañu mën a am mais comme euh, dara matalawul euh, moo tax euh, ñu ne lii gouvernement bi def ñu nit commune bi nañu wut loo xamante ne dinañ ko si yopp moo tax ñu jënd ceeb bi fas yéene kaa joxe tey si ñi nga xamante ne ay famille lañu man naam sax bu ko joxee ba pare sax dañ wax na ñu amul waaye nag ñu def rek suñu warugar bu ñu amaate leneen nit bu soobee ak ñu defaat loolu mooy cérémonie